à gauche à droite Et le gagnant c'est comment ça merci qu'est-ce que le garçon a dit que nous avons fait Balla Gaye avance Boy ak tafatine taxaw un doon wut à euh, doon wut Balla revanche Balla il est très intelligent. très intelligent man damaa garçon. Fait dafa am revanche. fi dafa am xalé bo xamanteni ni Balla dafa ne yàkkamtiwuma ko manga bu xay la ñoragul duma ci def xorom duma ci def kani, duma ci def bineegar damay bayyi mu ñor ma witti tabbi même bu Balla ame defet ma gri bordo digënté ma ka euh, Boy ñang combat bu neex la. bu bu Boy ñang amé defet. dam non dama la ne sàcc bu du raw jarté yaqi nelaw toujours da ngay wax da ngay wax pour wax contre dama nek ci Balla te ñewuguma dama ne.

bu tafaatin daanee tafaatin ak Balla Gaye amee wu revanche ah bravo garçon. tafaatin lak da ngeen revanche. ak ah, revanche bravo garçon. parce que il est très intelligent ta xamna fi mu jëm. kon est-ce que du Lac de n'est pas le grand perdant. Lac de Guiers lan la am lu muy perte ci làmb ay adversaire am ñoo bari ci làmb ji. mais demone na ba digganteem mak Tapha Tine à sa man Lac de Guiers fu mu demee bay bëre ak Boy ñang ay adversaire am ñoo nek ci làmb ji lamb ji et quelques licenciés VIP 10 VIP 4 VIP ils VIP combat et puis lamb est-ce que dafa yem ci premier tour et un deuxième tour ah basta